voilà dañuy dellu si waat nag soobu ci suñu waxtaan bi maa ngi ko doon annoncé tout à l'heure ki ñu fiy dalal tey moo di Amadou nekk président de l' alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, ñu ngi lay fay bu baax Astou. di nuyu téléspectateurs yëpp di jéggalu baax tamit ci retard bi nga xam ne am nañu ko ci émission bi. alors tey ñu fa yéene waxtaanee lu jëm ci wàllum citoyenneté euh, bu ñu ne citoyenneté nag day xaw a laal un peu civisme. Mm-hmm. ak it euh, yéen ci li nga xamante ni moo di seen mission laata sax ñuy ñëw ci loolu lan mooy mission alliance bi nga xam ni yow yaa ko jiite. waaw alliance bi nag comme ni nga ko déggee muy AGELS di alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal donc mu nekk structure boo xam ne euh, ñu ngi activé aussi trois points le leadership. l'entrepreneuriat et la citoyenneté au Sénégal donc en 2018 ba ñu seetloo ko ne entreprise yu bëri dañuy jël jeune ndaw ñi euh, di leen defloo ay stagiaires nekk nekk def leen ay stagiaires administratifs stage trois mois wala 6 mois après renouvelable mën nañ la embaucher ou pas donc pour nañ ne pourquoi pas ñu passer à travers l'entrepreneuriat donc gëm suñu bopp teg suñu propre entreprise ñëpp mënuñ nekk ay entrepreneur mais aussi ñenn ñi bu ñu créer ñeneen ñi dinañ am emploi ñeneen ñi dinañ gis seen bopp. donc leadership bi mooy ñun li ñu def nii en tant que des jeunes gëm suñu réew tey jii bokk ci li nga xam ne moo koy doxal te orienté aussi benn partie jeunesse bi ci li nga xam ne nii mooy développement citoyenneté mooy comme li nga ko waxee civisme patriotisme intégrité valeur citoyenne yi nga xam ne ni yeneen réew yi am nañ ko ba àgg fi ñu àgg comme Rwanda ak ñeneen ak ñeneen ñun ñu am valeur citoyenne yooyu ba àgg fi ñu bëgg àgg donc alliance bi ça tourne autour de ces trois points le leadership l'entrepreneuriat et la citoyenneté des jeunes. donc leadership bi ci ban aspect ci ban euh, ci yan secteur. Mhm. Euh, foofu ngeen koy xaar wala boog foofu ngeen ko gis. waaw mooy comme secteur bi ñu nekk rek le secteur développement parce que tey jii gis nañ ne euh, si par exemple échelon politique bi nga xam ne moo fi nekk si yenn post yi si yenn yi entre autres boo nekkul politicien doo ko am donc ñun aspect bi mooy tant que des jeunes leaders. pourquoi pas ñu porter un combat mais combat bi nga xam ne ni c'est un combat citoyen c'est-à-dire que à chaque fois ñuy def la politique politicienne pour mën a àgg benn niveau bi euh, ñu passer par tey di notre leadership walla tey ji ci suñu euh, jàng wala si suñu xam-xam ba nekk fi nga xam ne ni tey jii boroom xam-xam mi wala fi nga xam ne ni tey jii nit ñi nga xam ne ñu ngi leen dégg fa lañ nekk donc leadership nag boo ko déggee mooy nit ku gëm boppam boo ko déggee boo un leader nag mooy ki orienté tey jii ay nit si fenn point objectif boo xam ne ni mën nañ fa àgg te ñun je pense que mission boobu lañu yor donc ñu ngi si bu baax quoi depuis 2018. est-ce que gis ngeen déjà euh, leadership boobu gis ngeen ni yenn ci jeunes yi ñu ngi koy doxee wala ñu ñu ngi bàyyi peut-être à travers les des politiques wala à travers peut-être doxalinu société bi mm. yéen a ngi sentir vraiment euh, engagement boobu nga xamante ne euh, yéen a ngi koy sentu ci jeunes yi est-ce que vous le sentez ou bien vous le voyez réellement. bon ce n'est pas évident nag parce que Sénégal lañ nekk donc booy wax yenn mooy tax ay leadership entrepreneuriat pour certains jeunes ñoom. bu ñu ko déggee rek en fait dafay dafay xaw a dafay xaw a di ñoom alors que dafa nekk ay juste ay mots la en français mais boo ko tekkee leadership mooy gëm sa bopp donc gëm sa bopp boobu nag des na bu baax a baax si ndaw ñi et normal parce que je me dis suñu politique yi ñoo orienté wul ndaw ñi si si sur l'essentiel cest à boo jëlee ndaw mi am noo ko noo ko tàggatee am noo ko noo ko jàng am noo ko tàggatee si bi muy ndaw donc bu màggee loolu lay màggaale du gëm boppam boo ko tàggatee si que dafa war a topp si ginnaaw nit wala dafa war a nekk koo xam ne derrière rek la war a nekk noonu nañ koy tàggatee moo tax ma ni leadership bi ñun dinañ andi beneen modèle mais c'est pas du yomb parce que di nga dajeek nit sax ne ko noo alliance des jeunes leaders mu ne non pourquoi leader dafa teel si ñun. alors que tey jii ñun ndaw ñi ñun ñoo war a yor avenir réew mi ñun ñoo war a préparer beneen avenir bi pour que ñu mën a am benn développement bi donc leadership bi peut-être gisuñ ko si ndaw ñi bu baax mais ñu ngi jéem a def lépp lu ñu mën. pour sensibiliser leen à ce que ñu bàyyi coûte que coûte di topp politiciens yi wala coûte que coûte topp yenn affaires yi ba nga xam ne ay ay pots de vin entre autres yi ñu leen di dugal ba nga xam ne da leen di suuxat. boo nekkee parce ne waruñu topp politiciens yi. ah man su su ma su ma gis mooy que politiciens yi si doxalin bi ñu am mooy que waruñu li seen topp muy lan muy am naa meeting wala am na activité wala bon ñëwal nga politique ma solal ma sama t-shirt yuuxul ma wala bon defal ma ay bruit sur les réseaux sociaux saagal ma kii tontul ma kii ku wax kii après bu ma gañ bu ma amee poste naa la am lu ma la jox wala dinaa la fal lii ñoom gëmuñ loolu lu ñu gëm nag mooy politique de développement kuy ñëw ne lii laay def politique de développement politique citoyenne loo xam day jëmal suñu réew kanam laa mën nañ si ànd ak autorité bi ñu liggéey mais pas beneen aspect bi nga xam ne moom lañ gis te que moo récurrent léegi sur les réseaux nga xam ne réseau bi gën na tax nag jeunes yi gën a tayal day am na jeunes yoo xam ne tey ji bu ñu xëyee seen portable la jël dugg sur les réseaux saaga Amadou Wade saaga Assou saaga ku leen neex après dem seen yoon loolu mooy seen métier. donc euh, foofu de foofu foofu moom bu ñuy ñëw ci mbirum citoyenneté dinañ ko laal lu lu bëri mhm. mais ci mbirum euh, leadership ba tey bu ñu fa taxawee na yan yoon ngeen di jël. yan yan yoon ngeen di jaar ak naka ngeen di fexee ba tàggat loolu euh, wala boo gën ko dëgëral ci ñi nga xam ni moo di ndaw ñi comme loolu mu bokk na ci seen mission. waaw avant dañu doon def ay séminaire dañ doon def ay séminaire def ay ay formation prise de parole publique comment être un très bon leader et tout mais dañ doon gis ne affaire du am affluence parce que comme nu ma la waxee sànq rek jeunes yi ñu si bëri am na moo yoo xam ne boo koy wax dañuy jàpp ne nekk ñoom du pour ñoom dañuy jàpp ne sax lii pour waa Sénégal ci lañ wàcce sur le terrain nag ne pourquoi pas ñu def ñu jëf parce que dama ne la meilleure façon d'éduquer c'est d'agir c'est-à-dire que xëy na bu ñu wàccee sur le terrain bi am na ñuy doxalee am acte yu ñuy posé action yoo xam ne ni dañ koy def sur le plan social sur le plan de la citoyenneté sur le plan de l'entrepreneuriat ñoom buñ ko gisee dañu gis ne ah waa ñii kat samay moroomu jeune lañ ñoom jug nañ tey ji jël seen responsabilité di def ay activité jël nañ jël seen seen responsabilité jël seen alal di ko def ci ay nit pourquoi pas man tamit ma bokk ci ñii donc noonu ngay gisee ay nit di intégrer di intégrer au début bu ñu intégrer dina am benn benn genre complexe bu fi nekk un peu mais bu ñu demee ba ci biir àndaloog ñun àndaloog ci activités yi donc dinañ gën a libéré te gis nañ ne léegi association de jeunes yi bëri nañ au Sénégal donc chaque fois ñu ngi gis ay association yu juddu club de leader alliance association ou bien mouvement donc loolu yëpp ça permet au jeune de se regrouper euh, vers un point essentiel mooy que leadership mais mais ça dépendra aussi de ce que vous euh, leader ak lan ngeen di définir leader parce que peut-être euh, les perceptions ne son pas pareilles. effectivement euh, yéen lan ngeen jàpp ni peut-être moom mooy leader ba tax ngeen mën a jël leader bu ci nekk ci benn secteur bu ci nekk ngeen mën a def benn alliance daal di taxawal seen ay euh, seen association wala bokk seen ay liggéey ak seen ay activités. effectivement waa xam nga astu nag leader moom. daanaka c'est un c'est un dafa nekk un fait naturel si nit c'est-à-dire que am na ñoo xam dañuy judd nekk leader am na ñoo xam ne bi ñu juddoo dañu leen di tàggat pour ñu nekk leader te nit ki si bi ngay ndaw ngay commencer xam ba xam yow leader ngay doon ou pas à travers peut-être sa sa école bi nga jàngee wala école coranique bi nga nekkoon am na nit ñoo xam ne même bu ñuy dem football sax bi ñu nekkee xale ñoom lañ daan wax yaay diriger lii yaay def yaay ne capitaine et tout ma la ko waxee sànq xëy na am nag day day nekk koo xam ne nii am na ay nit ñu topp ci ginnaawam mu leen di orienter ci benn objectif bu précis mais naa na comme ni ma la ko waxee ñëpp mënuñu nekk ay leader et entrepreneur parce que dëkk foog am ñu jiitu am ñoo xam ne ñooy topp ci ginnaaw am na ñoo xam ne duñ ay leader mais sont de très bons peut-être xëy na ay manager wala ñoo xam ne nii tey jii dañuy ànd ak yow pas ay leader carrément mënuñu diriger boo leen joxoon diriger duñ diriger mais mën nañu def seen liggéey sur le plan du leadership ñun ñi tey ji nekk si kanam wóoruñu ne que ni ay lutte nous sommes des leaders fii nii non dañoo nekk si yoon di jàng aussi ñi ñu diriger aussi gënuñ leen xam lu leadership mais comme ni ma la ko waxee ay ay ndaw lañ donc dañuy tàggat suñu bopp pour à ce que ñu nekk ay leaders yu kale yoo xam ne nii ëllëg si biir ñun dinañ mën a jël suñu réew am fuñ ko yóbbu. Euh, ci boobule euh, ponk ba tey euh, boo nee leadership dafa am doxalin yi nga xamante ni peut-être yéen a ngi koy xaar si ndaw ñi ma laal un peu lu jëm ci wàllum citoyenneté naka nga gisee évolution bi fii ci biir Sénégal wàllum citoyenneté boo ko doon natt wala di ko analyser lan moo ci doon sa gis-gis. waaw su xam nag bugguma wax loo xam ne ni après jeunes yi dinañ jàpp que ni damay dal seen kaw mais. si wàllum citoyenneté je me mais da ngay wax li am rek. loolu waaw waaw effectivement parce que mhm. am nañ benn recul bu baax surtout ak période bii passé parce que je me dis li gën a yokk tax Sénégal plombe si benn si benn trou mooy que mooy affaire réseaux sociaux yi parce que aujourd'hui tey ji euh, discipline bi ñu daan gis gisatuñ ko tey ji foi bi ñu daan gis gisatuñ ko tey ji tegg ñi nga xam ne valeurs yi nga xam ne ñu ngi ko daan gis gisatuñ ko tax les réseaux parce que asu citoyenneté dafa am solo si dëkk tey jii boo nekkee ci mbedd di dox yor sa tasse de kafe ak bu mu mënti doon nga naan ko pare sànni ko parce que jàpp nga ni par exemple yow buur euh, mbedd mbedd buur la boo ne nit ki bul sànni fii loolu la lay njëkk wax beneen bi mooy tey jii élection bu jotee jeunes di voté dañuy préféré xëy na encaisser mais yooyu yaakaaroo ni maintenant c'est c'est c'est révolu lu fekk euh, jeune daan naan dara sànni si mbedd wala affaire yooyu euh. la preuve mooy que mooy que boo rombee ci mbedd yi boo génnee fii léegi di nga gis ay ay tarte café yu ñu sànni ay sachet d'eau yu ñu sànni parce que boo maanaam dafa nekk loo xam ne nii suñu suñu suñuy habitude la te pour ñu dindi ko du yomb parce que am na yoo xam ne boo ko dee def la danaan la yow xanaa tubaab nga yow xanaa dangaa voyagé woon ñëwaat parce que son dañoo nekk acte yoo xam ne xëy na bëri na jeunes yoo xam ne jombal nañ suñu bopp mais comme ni ma la ko waxee c'est-à-dire que réseaux sociaux am na lu baax am na lu bon à travers les réseaux ngi sensibiliser jeunes yi par rapport à l'insalubrité au Sénégal d'ailleurs def nañu activité yu bëri ci plan boobu mais aussi y a y des gens yoo xam ne nii ñu ngi ci comme ay junior ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey jii ñu ngi sur le terrain di promouvoir la citoyenneté à travers le combat contre l'insalubrité mais citoyenneté du loolu kese maanaam mi ngi ci tamit nga nekk ndaw respecter les institutions respecter ñi nga xam ne ni ñooy say autorité respecter li nga xam ne ni mooy les biens privés et publics nga xam ne gis nañ que ni euh, li xew fan yi passé nga xam ne matul un mois wane na que ni am na valeur citoyenne yoo xam ne yu bëri Sénégal perdre nañ ko te bu ñu toppee aspect boobu rek du fi ñuy jëm narul baax quoi. Euh, tout à yaa ngi wax waxu réseaux sociaux yi euh, naka nga gisee ces événements qui se son passés récemment mooy ñi nga xamante ni euh, jàpp nañ leen à travers euh, des commentaires tout récemment gis nañ ñi nga xam ni également Dakar Actu porté na leen plainte ba démb ñu bàyyi leen naka nga gisee loolu. tee bi ñu leen tee ak aussi surtout restrictions yi nga xam ne ñu ngi koy annoncé concernant euh, yenn ci euh, doxalin yi am ci réseaux sociaux yi. waa xam nga am nga nag euh, asu presse dafa am liberté de presse dafa am xëy na ak ak ak liberté d'expression mais je me dis que bu dee presse bi man presse bi bu dee presse bi comme les télévision les sites internet ñi nga xam ne dañ leen reconnaître comme des presses maanaam dañ leen war a bàyyi ñu def seen liggéey même en temps de guerre si monde bi yëpp. da ngay gis des caméras te des journalistes yoo ay journalistes yoo xam ne dañu nekk sur le terrain mais dañ leen di protéger parce que loolu seen liggéey dañoo war a wane lépp donc restriction bu mu mënti dem ci presse ma à part loo xam ne nii xëy na